maanaam gëléem ak nag ak xarak day génn ci asaka lu war la su fekkee nisaab ja mat na gëléem moom leen li fi amoo ci lu mat juróom rek asakut la war ni ki genn yaa lett yent dara waru ci bu amee juróom nag asaka war ci waaye asaka du nekk gëléem fa saasa mais bu amee juróomi gëléem dañ lay laaj benn gàtt benn gàtt ba mën naa nekk jasaxa mën naa nekk saniya bu dee xar moom jasaxa rek baax na mooy bu am at mat ba dugg ci moom ñaareel ma ak dugg ko néew néew saniya nag mooy mu dugg ci atum ñaareel ma dugg gu baax a baax ne bu dee bëri moom loolaa cee gën waaye dañuy seet nag foofee rek bu fa ëpp bu fekkee xara fa ëpp te ngay joxe benn gàtt boobu dafa doy ëppee itam nga génne ko ci bëy bu ñu fa yewee ñoom ñaar nag nga génne ko ci xar borom saraa bi bu dee xamle jasan ak saniya day wax ne ku mën doon ci ñoom ñaar rek mooy mu am at ba dugg ci atum ñaareel ma waaye nag saniya moom mooy mu dugg ci atum ñaareel ma dugg gu baax a baax gu wér a wér te tàmbalee juróomi gëléem ba juróom-ñeent doo soppi benn gàtt bi nga daa joxe maanaam bu fekkee mat na fukk gëléem nag ngay joxe ñaari gàtt muy seen asaka maanaam li dalee fukk ba fukk ak ñeent doo yokk ñaar yi nga daan joxe su matee fukk ak juróom ci gëléem nag nga tàmbalee joxe ñetti gàtt ba fukk ak juróom-ñeent doo yokk ñett yi nga daan joxe boo amee ñaar fukk gëléem nag ñu topp ko juróom bu ne nga joxe ci ab gàtt kon nga joxe ñeenti gàtt maanaam ñaar fukk yi bu tegalee benn ñaar ñetti ñeent muy ñaar fukk ñeent yi du tax nga soppi ñeenti gàtt yi nga daa joxe daa wax nag bu fekkee am nga vingt cinq ci gëléem nag foofu ñu tàmbalee joxe gëléem waaw boo amee vingt cinq ci gëléem da ngay bàyyi joxe gàtt ma tey joxe asaka gëléem foofu ngay joxe bintu ma xaab bintu ma xaab mooy gëléem bu jigéen goo xam ne am na at ba dugg ci moom ñaareel ma daa wax rek doom ñaari at waaye doom ñenn at ba dugg ci moom ñaareel moo ko tax di wax su fekkee amoo ci sa jur bintu ma xaab kon mën ngaa joxe ibnu laboon ibnu laboon nag mooy ku am ñaari at ba dugg ci moom ñetteel waaye day góor nag boole ca moom bintu ñoo tolloo at waaye bintu day nekk jigéen ibnu nekk góor kon nag bu fekkee amoo bintu ma xaab daañu la may nga joxe ibnu la boon waaye nag gëleem góor lay nekk bu am ñaari at ba dugg ci moom ñetteel dalee vingt cinq ba trente cinq doo soppi bintu ma xaab di nga daa joxe daa wax ne nag bu fekkee ne trente cinq yi tegu na benn muy trente six foofu ngay soppee tàmbalee joxe bintu la boon bintu la boon nag mooy gëleem bu jigéen goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci moom ñetteel ma bu ma ñëw ci 45 doo soppi di joxe bint la boon bi nga mujj a tudd léegi daa wax ne 45 yi bu tegalee benn muy 46 foofu ngay soppee bàyyi joxe bint la boon tey joxe xiqa xiqa nag mooy ku am ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel ma daa jekki-jekki na rek wax yi bintu arbañ si na ne mooy doomu ñeenti at waaye déedéet ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel lañ bëgg a wax kon jàppal ne boo amee 46 foofu ngay tàmbalee joxe xiqa te xiqa mooy kële bu jigéen goo xam ne mën na mënees na ko sës mat naa tëbu te muy am na ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel xam nga li nga mujj wax léegi da nga ne woon li tàmbalee quarante six ba soixante soixante yi nag léegi bu tegalee benn muy soixante et un foofu ngay tàmbalee joxe jasaxa te bàyyi xiqa wax yow moom jasaxa bintu xam si sini na mooy doomu juróomi at boo ko waxee noonu waaye mooy doomi ñeenti at ba dugg ci moom juróomi at kon soixante et un boo ko amee rek foofu ngay tàmbalee joxe jasaxa bàyyi xiqa kon yent yi mu la waxoon noonu lañ magantee dafa njëkk a tudd bintu maxaab teg ci bintu laboon teg ci xiqa teg ci jasaxa muy ñeent jàppale ka jiitu daa am at ba dugg ci moom ñaareel ka ci topp ñaar ba ci moom ñetteel ka ci topp ñett ba ci moom ñeenteel ki ci mujj ñeent ba ci moom juróomeel noonu la ñu magantee la dalee soixante et un bu nga ñëw soixante quinze doo soppi jasaxa bi nga daan joxe maanaam boo weesoo soixante quinze mu tegu benn muy soixante seize foofu ngay tàmbalee nga joxe ñaari bintu la bon fekk na xam nga bintu la bon nag ngay joxe ñaaram ba ci ba ci quatre-vingt-dix nag doo soppi ñaari bintu la bon yi ngay joxe maanaam quatre-vingt-dix yi bu tegalee benn muy quatre-vingt-onze foofu ngay soppee nag tàmbalee joxe ñaari xiqa te bàyyee joxe ñaari bintu la bon yi nga daan joxe la dalee ci quatre-vingt-onze ba ci cent we ba ci cent vingt-neuf la nga daa joxe du soppiku ba tey yaa ngi joxe rek ñaari xiqa su ko si àgg nag ci cent trente nag moom lay wax naa maanaam cent vingt neuf bu tegalee benn muy cent trente jëm ca kaw nag lay wane ne moom dañuy seet sa jur rek par ay cinquante ak par ay quarante
su fekkee lépp mën naa nekk ay cinquante baax na su fekkee lépp mën naa nekk ay quarante baax na bu mënee teqalikoo lee nekk ay quarante lee nekk ay cinquante baax na cinquante bu ne nga joxe ci xeq muy asakaam quarante bu ne nga joxe ci bunt la ba muy asakaam mel ne bu doonee cent trente képp yem ci day doon benn cinquante ak ñaari quarante benn cinquante ba nga joxe ca xeqa ñaari quarante ya benn quarante bu ne nga joxe ci bunt la bon noonu la wéy rek nag fukk fukk bu ci yokk rek la nga daa joxe noonu lay demee nag moom neen li fekk amul ci fanweer asaka warul la boo amee fanweer nag loolu mooy nisaab bi ci gën a néew nga war a joxe nawu góor wu amee ñaari at nawu góor wu am ñaari at moom nga joxe xam moom sax boo joxe wu jigéen bu baax dañoo jàpp ne joxe góor gi moo gën a yomb rek waaye boo amee fanweer nag daal joxeel wenn nag woo xam ne am na ñaari at muy sa asaka góor la wax nag waaye boo joxee jigéen ji itam mu baax daa wax ne li dalee trente ci ay nag pour nga dem trente neuf bu ñeent fukki manqué benn doo soppi li nga daa joxe mooy wenn nag bu am ñaari at su tegoo benn muy quarante nag foofu nga tàmbalee joxe machine na machine na moom dañuy fàtte muy jigéen te it day am ñetti at yu mat sëkk léegi wax ne mooy ñeent nag moom sar suñ ci mën ñeent ñett yi daal moo gën a wóor mel na ne waaw machine na boobu nee na moo tudd sanie
la dalee quarante ba ci cinquante neuf amatuk soppiku machine na lay joxe cinquante neuf nag bu tegalee benn muy soixante mu daal di nekk ñaari trente daal di joxe ñaari tabiyon noonu lay soppiku di wéy nag fukk yoo xam yokku na ci rek lam daan joxe soppiku ndax juróom benn fukk bu tegalee fukk muy juróom ñaar fukk nga jàpp ne kon am na benn quarante ak benn trente trente bi mu joxe ci hijlu muy tabiyon quarante bi mu joxe ci machine na su tegalaatee fukk muy quatre-vingts ñu jàpp ko muy ñaari quarante mu joxe ñaari machine na muy wéy rek nag noonu lay tegaloo di wéy nga xam ne daal bu ay nagam bari bari bari noonu lañ koy toppee trente bu ne mu joxe ca tabiyon quarante bu ne mu joxe ca machine na su fekkee lépp daa nekk ay quarante quarante bu ne machine na bu lépp nekkee ay trente trente bu ne tabiyon buñ jaxasoo nag ñu teqale ko trente bu ne tabiyon quarante bu ne machine na
maanaam xarak bay moom mooy gàtt li fi amoo quarante rek asaka waru la ci boo amee quarante nag foofu nga war a joxee benn gàtt muy sa asaka mën naa nekk jasan mën naa nekk saniya bu ko defee li tàmbalee quarante nag ba cent we téeméeri ñaar fukk doo yokku da nga daa joxe benn gàtt rek ngay joxe maanaam cent we yi bu tegalee benn rek muy cent vingt et un foofu ngay tàmbalee joxe nag ñaari gàtt wala ci cent vingt et un ba nga ñëw ci deux cent doo weesu ñaari gàtt yi nga daa joxe maanaam bu fekkee am nga deux cent un ñaar téeméer yi tegal benn foofu ngay soppee tàmbalee joxe ñetti gàtt ba ba ngay am trois cent ba ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf muy ñeent téeméer yi manqué benn doo soppi ñetti gàtt yi nga daan joxe soo amee ñeenti téeméer nag doo la joxe ñeenti gàtt maanaam soo amee quatre cent ci ngay joxe ñeenti gàtt ñu tàmbalee wañu nag par ay téeméer nga xam ne boo amee juróomi téeméer joxe juróomi gàtt boo amee junni gàtt joxe fukki gàtt xam ne benn téeméer bu ne rek benn gàtt mooy asakaam kon jàppal ne di tàmbalee deux cent un ba ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf maanaam muy ñeent téeméer yi manqué benn doo soppi ñetti gàtt nga daan joxe soo amee ñeenti téeméer nag foofu ngay joxe ñeenti gàtt ñu tàmbalee foofu di wañu nag par ay téeméer rek téeméer bu ñëw bu ne rek nga wañu par téeméer yi téeméer bu ne nga joxe ca ab gàtt nee na waqas moom jurikat moo ko am ne amul sax ci mbay amul ci wurus ak xaalis waqas nag mooy bu ñu nee boo amee nangam joxeel nangam dañ cee tegaat lim boo xam ne sa ju yokku na ko te sa asakam du ci yokk nit ki li nga wees léegi ci gàtt moo ci gën a doy waar xam nga da nga ne léegi boo amee quarante ba joxe benn da nga dem ba cent we te doo weesu benn bi xool la ci yokku na mu bare te yokku dara ci sa asaka cent we bu tegalee bennaat bennaat nag mooy cent vingt et un ci nga doon tàmbalee joxe ñaar diggante boobu dox nag quarante ak cent vingt et un yi dañuy bari bari te nga xam joxewoo ci dara ci asaka loolu moo tudd waqas xam nga bu dee ci gëléem itam da nga ne boo amee juróomi gëléem joxe benn gàtt waaye bu amee juróom ñeenti gëléem itam ñeent yi yokkul tax nga joxal ko dara ci asaka te loolu waqas la ab da nga nag boo amee trente ngay joxe benn nag bu am ñaari at bu amoon trente neuf nag du tax nga yokk dara ci nga daan joxe bu amee quarante nga door tàmbali joxe machine na kon la nga xam ne sa jur yokku na ko te sa asaka yokku ko loolu moo tudd waqas waaye loolu nag amul ci mbay amul ci wur sa xaalis mbay moom boo ko seet ay bërigo ba yàgg bëtu ay bërigo da nga koy natt ci ay bool mbaa ay biwaar di seet rek juróom-ñeent yoo tee jox yàlla benn muy asaka boo waroon xam ni ki boo ko nattee ay biwaar ba yàgg bëtu ay biwaar ngay bàyyi biwaar jël lu gën a tuuti boo waroon topp ay bërigo ba yàgg bëtu ay bërigo ngay ci topp ay kilo wax ni moom bu doon ci mbay daal moom mbaa muy wut sa xaalis moom lu dara néew ni rek la tolloo moom ci asaka war a génn xara bay daal leen boole ci asaka mooy boo amoon tey ñaar fukki xar am ñaar fukki bay dañuy jàpp ne am nga ñeen fukk nga daal di génn benn gàtt muy asaka baqar mooy nag yi nga mii fii ci réew mi jawamis nag ay xeet nag la ñoo xam ne miinoo leen waaye boo amoon ci ay jawamis ci misaal nar fukk am ci baqar fukk dañ koy boole mi fanweer su ko defee nga war a joxe asaka muy xijlu xiraab mooy gën yi nga miin fii moo tudd iraab bu boxtu nag gëleem la yoo xam ne miinoo leen waaye boo amoon ci ay bés ci ñett am ci xiraab ñaar dañu jàpp ne juróom la su ko defee asaka war la
nee na ñu boole seenu jur bu ca sàttee dajee buñ dee joxe asaka ni ki laajkatu asaka bu ñëw di ko jël si du teqale jur ga da koy jàppe genn gétt rek seet ne bu fekkoon ne kenn ko moomoon luñ ci war a génn rek nu mu war a toll mu daal di ko cee génn dem bu demee nag bokk na ca sàttee itam jur gañ boole doon benn façon maanaam nga xam daal daañu leen boole ci asaka waaye bu fekkoon dañoo boole kii amee ay gàtt kii amee ay gëléem te xam nga kenn du boole gàtt ak gëléem ci asaka su boobaa itam dañuy bàyyi kenn ku ne ber ak juróom ñu génne asakaam rek waaye di su ko jàppee di leen jaxase déedéet bu fekkoon ne nag kee daa amee xar kee amee béy moom loola mën naa nekk nga xam nga ne xar ak béy daañu leen boole ci asaka.
maanaam ñaari jaxal seen jur nag bu fekkee kenn ka daa mate nisaab kenn ka matewul nisaab xamal ne ka matewul nisaab moom asaka waru ko bu yàlla dogalee kay laaj asaka ñëw jàpp ci moom it dam bokkal da ko remboursé rek delloo ko lépp lañ jël ci moom waaye moom asaka waru ko mel ne boo amoon ñeent fukki gàtt jaxasee koo xam ne moom léegi fanweer la am xam nga ko lee si ñeent fukk moom mat na nisaab waaye fanweer a matul nisaab kon moom am fanweer bu ñu jàppee ci moom itam waruñoo jàpp ci moom dara ko yow mi nga xam ne yaa mat li ñeen fukk yaa koy delloo gàtt boobu rek bu wér wér nee na ñoo xam ne ñoo boole wu seen jur ba yàgg jël asaka yi bëgg a jot joxe asaka yi bëgg a jot ñu daal di bëgg a tàggoo mbaa ñu tàggoon ba yàgg joxe asaka yi bëgg a jot ñu bëgg a boole dañuy seet ba xam bu fekkee ne daal loola dam asaka tax ñu koy def ndax dañoo seet ne bu ñu tàggoo mbaa bu ñu boolee dana tax la ñu war a joxe manqué dana tax la ñu war a joxe néew moo tax ñu bëgg a def loola yoon du ko nangu bi nga xamee ni moom bu ñu teqalee mu amal leen njëriñ mooy lu mel ne ñaari gaay yoo xam ne kenn ku ne am na cent un maanaam kenn ku ne am na téeméer ak benn am kenn ku ne amee cent un bu ñu ko boolee xam nga deux cent deux lay doon te ñetti gàtt moo ci wax loolu nag xam nga bu ñu demee bu ba joxe askan bi ko jot. laajkatu asaka yi bëgg a ñëw ñu ne léegi nan tàggoo kenn ku ne demal sa cent un xam nga cent un moom bu dikkee benn rek la ñuy jàpp ci yow ndax cent vingt et un ci la ñu door a jàpp deux waaye ndegam biñ boolee mat la woon nañ deux cent deux moom ñett moo ci waroon génn waaw léegi nag ñu ne nan nan tàggoo rek kenn ku ne dem ndax buñ ci àggee bay joxe kenn ku ne benn ngay joxe loolu yoon du ko nangu dañuy jàpp ci ñett rek benn yoon bi nga xamee nag boole gi moo leen di amal njëriñ mooy lu mel ne ñett ñoo xam ne kenn ku ne am na quarante xam nga ñett ñoo xam ne kenn ku ne am na quarante buñ beroo bañ a ànd ku nekk da nga joxe benn suñ demee nag bu mu baat mi bëgg a ñu boole ko nag bu ñetti quarante lu muy doon cent vingt dong lay doon te cent vingt benn gàtt ci war xoolal loolu rek nga xam ne ñoom bu ñu beru xantee danañ defoon ku ne war ngaa joxe benn am kenn ku ne am na quarante su ko boolee nag léegi ñetti quarante yi cent wees dong lay doon te su boobaa benn gàtt képp moo leen di wax loolu kon bu ñëwee dañ koy boole te fekk at maa ngi bëgg a dee dee su ko nangu dañuy jàpp dañoo bëgg a daw asaka rek moo tax ñu def noonu dañuy jàpp kenn ku ne joxe benn rek waaye du nangu ñu boole lépp muy cent vingt ñu joxe benn gàttu jëlis waxoon nañ lam war a jël maanaam buñ ko nee nangam nga jël wax nañ ko loola mu war toll nga bu dee ci gàtt te aajowoo am at kon nag danga bu dee gàtt lu mu néew néew am at kon du sañ a jël loo xam ne àggul ci at lu àggul ci at rek kon burtu la te nag mu jël ko te tee nag burtu yi daañu ko ñëwaale ci borom gàtt yi mel ne bu fekkoon ne daa amee ñaar fukki gàtt yu mag ak ñaar fukki njurtu bi dañ jàpp ko muy ñeent fukk jël ci benn muy asaka waaye bu ñu jël duñ jël njurtu nag dañuy jël ci yu mag ya nga xam ne am néew néew moom am at tolluwaay dundam mat at ko waxoon ne kon nag ba nga ci war a jàpp lu mu néew néew am ñaari at lañ ko waxoon kon nag lu lu yées loolu rek fu lu yées loolu rek aw sëlu la du ko sañ a jël moom mi joxe itam bu dee jox asaka du sañ joxe aw sëlu déedéet fekkee laaj kat bàyyi laaj na jël lañ ko waxoon mu jël ko yées bu dee mooy joxe tey bakkanam itam na joxe way mat waaye bu mu joxe mu manqué ba tey gëleem moom bintu mbaxaar du mooy ci gën a néew tolluwaay dund te lañ war a jël ci asaka ndax mooy gëleem bu jigéen ko am at ba dugg ci moom ñaareel kooku nag kon bu dee moom muy joxe bu dee moom mooy joxe asakaam ci tey bakkanam bu mu joxe wu yées woo bu dee kookaay laaj asaka itam yoon sant ko itam kon bu mu jël wu yées woo sol yi nga waxoon ci nay ak mbottuwaay yi nga waxoon muy mbott yi ci gëleem yëpp du tey wàññiwaale ko ci borom jur yi nit nga xam ne bu amoon ñaar fukki nag yu mag ak fukki nag yu ndaw yu fukki sol yi nag dañ jàpp ko muy fanweer mu war a joxe wenn waaye bu dee joxe wenn woon wenn woo bu mu nekk sëllu maanaam lu yées ñaari at ba tey bu amoon ci ay gëléem ñaar fukk yu mag am juróomi mburt yu gëléem du tey jàppee ko ñaar fukk juróom war a joxe bintu maxaab waaye du sañ a joxe nag lu yées bintu maxaab def mooy mburtu bëy ba mu ne mburtu rek caxar yóbbaale woon na bii mu toll nii boobu bëy ndax bëy moom lu mu néew néew bañ cay jox asaka war naa mat at ba tey moom mi joxe asaka bu mu seet bu màggat ba yooy mu di ko joxe asaka bu dee kay laaj asaka itam bu mu nangoo jël bu mel noonu ba tey dañuy bañ moom mi nga xam ne mooy laaj asaka mu bëgg a forcé borom jur ga ci jël ci moom bu ëmb ndax dañu bañ mu gaañ borom jur ga ndax bu jëlee bu ëmb day mel ne ku jël ñaar bu fekkee nag kay joxe asaka moo coobare mu joxe bu ëmb loola baax na loolu tam dañuy bañ a gaañ borom jur gi rek moo tax kuy la nga xam ne mooy ànd jigéen ya ba tax yokku mën ci am kenn du ko jël di ko yóbbu ci forfait bu ko coobare woo joxe ko nag baax na waaye kenn du ko wax ne ko faaw dañuy jël sa kuy li nga xam ne mooy ànd yu jigéen ba tey gàtt ba mu fonk di ko yefal nga xam ne bii ku ko yefal mu baax mu fonk ko di ko yefal ba mu suur muy góor muy jigéen ñoo ci yemoo kenn du wax ne ko moom lañu yóbbu asaka déedéet bu ko neexee wut bu digg doomu rek bu ko coobaree woo joxe ko ngir yàlla nag baax na waaye kenn du ko force ne ko moom ngay joxe rek bay nàmpal bu jigéen bi nga xam ne mi ngi ànd doom doom ji féregut kenn du ko jël di fa bàyyi doom ji ñu koy bàyyi ak moom bu amul yeneen ñu wax ko bu si bu wute rek bu jaadu bu digg doomu waaye boobu kenn du ko yóbbu daa bëgg a wax ne rek borom jur gi kenn du ko wax ne ko dañuy seet yi nga gën a baaxle ñu jël ko te doo ko sañ a bañ waaye moom du sañ a wax ne yu yemaay yi laay joxe duñ ko sañ a bañ déedéet xëy naa seet yi diggu doomu nag mu joxe ko bu ko neexee itam bëgg lu baax tax mu joxe tànnee fii loolaa gën waaye yemaay yi moom doogu ji ne faaw moom laay joxe asaka déedéet ki jël sama asaka maanaam ki laaj si asaka du ko wax ne ko faaw man tam yi gën a baax laay taam te moom laay jël doo ko sañ a bañ déedéet moom daal mën na su am ay tànnee fi kese buuti yu digg doomu bu amee ay kiis kese itam buuti yu digg doomu bu amee tànneef kese nag bu ko neexee joxe ci tànneef yi moom waaye bu amee ay kiis yi kese moom du sañ joxe ci benn ci kiis yooyee ndegam moom jur la war a joxe asaka nag faaw day joxe ak jur rek waaye du joxe marchandise mu wecc ko wala ak njëkk mu di ko wecc maanaam mel ne bëgg a joxe aw ab rajo mbaa montar mbaa leneen mu wecc la war a joxe ci jur mbaa ñu bëgg a seet la jur koy jar ci wurus mbaa xaalis mu koy joxe déedéet kenn du ko nangu moom daal bu waree joxe asakay pepp asakay pepp lay joxe bu waree joxe asakay tàndarma noonu bu waree joxe asakay jur ba tey noonu rek li nangu nag mu joxe marchandise mbaa njëgg ma di ko wecc déedéet daa wax nag bu fekkee ne kay laaj asaka moo forcé ki joxe asaka ne ko man kat da ngay jox rek njëg gi ma yóbbu waaye du ma yóbbu jëmmi jur gi mbaa du ma yóbbu jëmmi pepp mbaa tàndarma ji xam nañ ko caa forcé moom mi joxe asaka ba tax mu joxe njëgg su boobaa nee na jàpp na ne kon jaanam wàcc na incha allah da caa wute bu rëy rëy nag moo tax mu boole ci incha allah